esle euh, Guelewar euh, ñu fas ne waxtaane lépp loo xamante ne rek euh, dox na ci li nga xamante ne moo di mbirum aji Sarr ak Ousmane Sonko rebondissement yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci waaye dañuy nuyu suñu gan laataa ñuy gën a xuus sëñ Assane ñu nuyu la maa ngi lay fay aussi ma nuyu sama frère yi ma sekkal plateau bi ak mbooleem sénégalais yi ñuy seetaan à Walf TV di la gërëm aussi ci invitation bi. jërëjëf euh, ñu xuus ci li nga xamante ne moo di euh, waxtaan wi dañuy euh, njëkk interpeller ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di suñuy chroniqueur laataa ñuy ñëw ci <laughs> Assane mu sànni ci itam ay kàddoom ñu tàmbale ko ak Georges Nesta Diop Georges dañ doon wax ne tungu ne du teew ñuy nataal démb nag gëm naa ne kii di hmm. Adji Sarr génn na li sénégalais yëpp la mais ñu fësal ko mais est-ce que dans sa communication li nga xamante ne moom moo di posture bi déjà sur la forme ndax euh, doon na loo xamante ne sénégalais yi loolu lañ doon xaar ci taxawaayam waaw awa merci maa ngi lay du nuyu ñi ma bokkal plateau yi plateau bi nuyu tamit euh, sénégal yi du seetaan en fait euh, waaw Sénégal day ñu ngi doon xaar am sax d'abord balaa ñuy dégg kàddu Adji Sarr. Mm-hmm. daaw nañ xaar sax am au moins Euh, image koo xam ne moo indi coow li mhm. parce que gis nañ si réseaux sociaux yi naan kii la ñii di naan di joxe ay image yoo xam ne du moom donc début bi nit bi ko Sénégalais yi découvrir pour la première fois am na ñu bëri dañu ne ah donc on s'est trompé de personne bon sur sa communication sur la forme comme dans le fond benn yoo xam ne bon man day d'accord ma si c'est vrai que pour moom ñi ko euh, ñi ko invité ñi ko conseillé pour mu def format boobu maanaam wax ak sénégalais yi euh, peut-être qu'ils ont leur raison mais euh, ça été pour moi un format catastrophique d'abord boo koy seetaan nga xam ne lii daanaka mise en scène la d'abord da ngay Sénégal yi doon waxal certes mais da ngay gis ne kii dafa mel nii dañ ko solal ay idées yoo xam ne da koy réciter ma koy réciter waaye leçon bi mokkul maanaam mu ngi tari loo xam ne jàng na ko naam mu ngi si mu ngi si euh, gémmiñam waaye nekkul si xelam parce que maîtriser wu ko. Mm-hmm. gis nga avocat parfois euh, day intervenir ne ko pose noppil bul répondre question boobu te ma yaakaar ne nit am na lu la dal mel ni euh, lu mel ni viol nga tuumaal nit ne ko diw moo ma def lii. loolu ça doit être spontané soxlawul mise en scène soxlawul ñu lay naan waxali wala defal lii sa la war a jóge mm-hmm. warul nekk loo xam ne euh, voilà da ngay toog di chercher les mots parfois nga toog naan waaw est loolu laa war a wax nga nga may kii nopp quelque chose comme ça doit être spontané gis nañ ko sax moom dem na ba bëgg a jooy mais mënul jooy parce que finalement ça sa ça ça prêtait à rire plutôt Euh, que nga yërëm ko finalement da ngay finalement am na ñoo xam ne sax dañ ne dañ ko yërëm parce que finalement kii elle est otage ay nit ñoo xam ne dañ ko bëgg a dañ ko bëgg a mm, jaay sénégalais yi maanaam wan sénégalais yi beneen kanamu aji Sarr boo xam ne moom la ñu ne si ay waxam si ay kàddoom si ay jëfam la Sénégal na doon takk keroog ensuite xam nga en matière de communication par communication dafa am loo xam ne c'est très important euh, mën nga nekk nga bëgg communiquer sujet bu am importance. laa wax de bu am importance. waaye ni nga koy waxee fi nga koy waxee ak ak eh, ki nga koy waxee ki nga koy waxeel dafa am importance. yaa ngi dégg li may wax. Mm-hmm. Eh, li mu doon wax am na importance parce que il s'agit de elle, elle défend ses droits. Mm -hmm. le droit et ça le droit le reconnaît ku ku ku ne dañ ma violer am nga droit taxaw ne damay porte plainte contre ki ma siif mais. na fekk nag aussi nga jël sa kéemtulaay kattan ba bi nga koy wax képp ku la déglu ne kii kat lu muy wax nii war nañ si bàyyi xel. Mm-hmm. ensuite nga ànd si ak koo xam ne man euh, je n'ai rien contre maître El Hadj Diouf vraiment su maa ngi koy nuyu au passage fekk mu ngi déglu déglu suma grand bu baax la suma mbokk séeréer la et tout mosu ñu sekk vraiment jàmm rek lañu sekk mais dans ce dossier la si affaire wu euh, théâtre boobu xaw mise en scène bu bu démb. waroon bu bëggoon affaire ba gën a am. Euh, crédibilité crédibilité desoon génnee loxoom jox beneen avocat wala mu jox beneen euh, en tout cas quelqu'un d'autre. parce que déjà ni ñu déjà si dossier bi je crois que si plateau Pape Ndiaye la woon si la constitué boppam si dossier bi donc euh, sénégalais yu bëri dañoo jàpp que ne kii il avait une dent contre Sonko d'ailleurs xam naa ne bu mu déggee ne Ousmane Sonko dañ ko jiiñ viol. Mhm. dafa ne alhamdulilah là je tiens ma revanche donc. ku mel noonu aussi bon véritablement boo bu ñu gisee ngay jéem a jouer rôle di nekk conseiller koo xam ne moom moo war a éclairer mhm. sénégalais si dossier bi dañu naan objectif dootul am objectivité parce que sénégalais xam ne déjà fi nga far xam nañ déjà li nga war a wax. Mhm. donc euh, li Adji Sarr wax démb yëpp ak ñu gis ko muy parfois mu koy xelal di ko naan bu tontu lii bu waxal lii bul wax lii sa haute toute objectivité. dans ce dossier te loolu tamit yàq na lu bëri si loo xam ne si discours Adji Sarr dem même si le discours était très important parole bi lu mu la doon wax sujet bi était très important parce que la portée finalement Adji Sarr a porté finalement préjudice à toutes les filles toutes les femmes yoo xam ne elles sont victimes de viol parce que mën nañu ne lii montage la ñu bëri dañoo jàpp lii montage la et peut-être bu ñu demee ba si biir nañu gën a développé Assane tey jii euh, ñu gis ne euh, c'est comme jeter de l'huile sur le feu bu fekkee ne gis nañu déclaration de presse bi nga xamante ne Adji sax def na ko te ñu ngi doon ut apaisement ci euh, beneen boor ba. Ramatoulaye jërëjëf. yaakaar naa Awa nga baal ma. <laughs> Georges wax na ko ah je pense que li xew de moom comédie la xam nga comédie sax léeg-léeg dana baax mais bu intervenir ci jamono boo xam ni réew mi dafay dund tragédie bu boobaa dafay doy waar. ajjuma bi ñu génn lañ doon dëjal ay sénégalais yoo xam ni seen bakkan rot na ci manifestation yi ñu génn réew mi nekkoon ci tension bu metti mhm. li ñuy wax l'exception sénégalaise sunu chef religieux muy kilifa diine yi fexe ba jël ndox faytaal bi ñu doon xaar ci nguur gi apaisement bu ko defee ñu mën a reprendre sunu ay activité ci jamono boobu lañ ñu indil démb benn comédie boo xam ni très sincèrement sénégalais yi jëppi nañ acteurs yi nga xam ni ñoom ñoo doon jouer comédie boobu te loolu li muy firndeel mooy bi événement yi amee président de la république bi mu àddoo jàkkaarlook sénégalais yi dañu leen je vous compris mais li xew démb wane na ni le pouvoir n'a absolument rien compris de ce qui s'est passé te loolu day feeñ même dans leur discours parce que mbir mi bi mu amee gis nañ mu am un décalage diggante ministre de l'intérieur li mu wax ministre de la justice ak même ministre des affaires étrangères boo ko méngalee ak li président de la république wax mhm. ndax président de la république bi mu àddoo mu ngi doon wax ay waxu covid euh, chômage des jeunes mais laata loolu ministre de l'intérieur mi ngi doon wax ay actes terroristes ministre de non c'est important parce que il faut ñu xam également depuis la dernière sortie du président de la république sénégalais yi doon xaar apaisement ak li xew tey li muy firnde rek mooy nguur gi amul benn leçon boo xam ni tiré na ko ci manifestation yi ñu passé ndax bu fekkee trois ministres ce ne sont pas de simples ministres mais ñooñu dañu nekk ci ay ministère de souveraineté muy affaires étrangères muy intérieur ak justice bu amee décalage bu doy noonu diggante li président de la république wax ak ministre yooyu ça veut dire que ñii amul benn leçon bu am solo boo xam ni tiire nañ ko. ci li xew fan yii yëpp. te wax dëgg yàlla loolu ñuy ñaalu la tey li ñu doon xaar mooy apaisement comme dossier bi mi ngi nekk en instruction ñoom loolu la ñu wax yaakaar naa Ousmane Sonko mu ngi xaar sénégalais yi ñu ngi xaar mu am un procès équitable bu ko defee complot bi nga xam ni. sénégalais yëpp gis nañ ni moom moo lal dossier bi mu leer nañ. bu ko defee ki kuñ ci war a sanctionné. ñu jël ay sanction teg ko si kaw mais comédie bu mel nii jaaduwul. si jamono bu sénégalais yi nekk ci dëj. d'accord euh, tey euh, Pape li ñuy gis moom moo di ne dañu ne dossier boo xamante ne c'est pendant devant la justice waruñu cee wax ci mbedd mi te jox nañu ndigal googu kii di Ousmane sonk ak ki nga xamante ne moom moo di Ndeye Khady Ndiaye mais mu mel ni tey euh, ji aji Sarr ak avocat wam dañoo violer li nga xamante ne moom moo di charte googu. waaw jërëjëf Awa maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma bokkal waxtaan bi ci plateau bi di nuyu également sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu bàyyi xel euh, wax nga dëgg euh, coow li bëri na ñëpp di laaj naan est-ce que Adji Sarr amoon na droit wax waaw wala déet mm-hmm. ñii ne amul droit wax parce que contrôle judiciaire bi euh, secret d'instruction bi ñoom ñëpp la concerné ñeneen ñi déedéet mm-hmm. Ousmane Sonko rek la concerné moom nekkul moom la ñuy topp boo demee ci article 11 code de procédure pénale moom mooy wax lu jëm ci wàllum secret de l' instruction lan mooy secret de l' bépp dossier boo xamante ni dafa nekk ci wàllub yoon te loolu article boobu moo ko wax ñi bokk ci dossier bi amuñu droit di ci wax donc li leer ba leer mooy Adji Sarr amul woon droit wax avocat am amul droit bàyyi ko mu wax donc loolu leer na article onze code de procédure pénale expliqué na leeral na ñen ñoo war a respecter secret de l'instruction maanaam nit yi nga xam ne ñoo bokk ci dossier yi moo xam ki porte plainte la moo xam ki ñu porte plainte moo xam avocat yi ci bokk donc ñi bokk ci dossier bi la mhm. donc foofu nga déggee ci sax ne ñun journalistes yi suñu yoon nekku si contrairement ak ñeneen ñi naan woy journalistes yi dossier bi mi ngi instruction ñun dossier mhm. ñëpp la concerné donc loolu yaakaar naa ne leer na gi article onze code de procédure pénale ba mu waxee luy secret de l'instruction nag dafa daal di wax ni képp ku ko jalgati am na daan buy teg sa kaw daan boobu nag article code pénal moo koy prévoir entre diggante benn weer ba six mois juge bi moom mooy xool li nga xamante ni moom moo ko si kii kon leer na ne Adji Sarr def na lu mu warul def. Mhm. avocat def woon def te loolu mën na am conséquence. ci procureur bu ko neexoon tey tey tey mu arrêté Adji pour violation de l'instruction parce que délit la. Mhm. boo xam ne ku ko def mën bu ko neexoon également dossier bi juge bi yor dossier bi mu saisir ko par le biais de réquisitoire supplétif pour que Adji Sarr ñu inculper ko pour violation secret de l'instruction de la même manière avocat bi nga xam ne moo ko ci encouragé def loo ko ci mën nañ ko poursuivre devant le parquet général mhm. donc loolu mooy première observation préliminaire bi ñaareel bi mooy lan moo tax Adji Sarr def sortie parce que ñu bëri ñu ngi euh, na. génne non ci ñëw loolu xam nga ñun ñëpp xam nañ ne Adji Sarr dëkk boobu ba léegi nii nekkul ak famille am nekkul ci ay loxo ay waajuram mhm. donc euh, vraiment famille ñi ngi doon sàkk pour que ñu génne ko ba ñu demee ba loolu nag mënuñ ci woon kii dañu nekkoon ci yoonu dem porter ji plainte pour séquestration seen doom feeñ ba ñu ñi ne ñoom ñoo téye Adji ba ñu xamee loolu ñu daal di ñaari mbir benn sa waa famille dalal leen pour ñu bañ a dem porter plainte pour pour pour séquestration ensuite nga dalal leen seen xel ne leen fan yii di ñëw dinaa génn wax donc ñaari mbir yooyu am na Adji Sarr wax na te warul woon wax. ñaareel bi am na li nga xamante ni moom moo ko poussé mu wax léegi nag li euh, liñ ci mën a jàngee mooy. Adji Sarr dafa am mook avocat am piège bu ñu tàndar Ousmane Sonko li waral coow li yëpp ak sorte bi yëpp loolu la piège bi ñu ko laal mooy lan Ousmane Sonko dañ ko inculpé jox ko contrôle judiciaire loolu mooy dossier bi ñu la toppee yoon amatoo droit wax ci donc piège bi mooy lan accusation yu grave yu bees tàq te dinañ ci ñëw léegi am na ci accusation yu bees yoo xam ne démb bi Adji Sarr di wax ci la koy soog a oh, génnee mhm. léegi nag piège bi moo doon Ousmane Sonko wala ñoom euh, mu génn daal di def réplique te bu boobaa bu ñu la may contrôle judiciaire nga génn wax ci dañuy révoquer directement contrôle judiciaire bi nga dem rëbës mhm. loolu mooy conséquence donc j'espère que Ousmane Sonko du dugg ci piège boobu ah mais menacé woon na leen ne leen suñ ci waxee ma wax waxee juge bi mën na révoquer contrôle def ko mandat de dépôt mu dem fële ak ni ma xamee avocat ko du daanu ci piège boobu mukk du daanu ci piège boobu tey euh, Issa gis nañu anam gi nga xamante ne moom la amee mais surtout une certaine presse rek la ñuy jël euh, yóbbu leen est-ce que loolu dina crédibiliser li nga xamante ne moom moo di déclaration bi ni ko jox Georges doon euh, waxee sànq. waaw awa ñu nuyuwaat itam ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal plateau bi boo xoolee entretien bi quand même ñu bari ñu ngi ko doon xaar. ngir Adji Sarr génn wax sénégalais yàkkamti woon nañ déjà def benn euh, xam kan mooy Adji saar réellement parce que gis nañ ay photo gis ay vidéo gis leneen ak leneen ci coow lu nga xam ne dañ naan le principal opposant moom nañ ci tuumaal donc nit ñi yàkkamti woon nañ ko gis ñu annoncé woon que ni dina bu ko interviewé euh, ba mu yàgg gisaguñ dara ñenn ñi sax demoon nañ ba xaw xëy na xawoon ci ñàkk yaakaar ñu tëba tëb gis ko ci quelques médias ndax kenn ki lañ ne moo am euh, exclusivité bi mais am na ñeneen ñoo xam ne tegaat nañ ko parce que ñi nga fa doon dégg ay journalistes yoo xam ne avant ñu koy teg sax xelaasoo naa ne nañ ko teg ba pare donc biñ ko defee nag dangay gis benn affaire mooy lan conférence de presse yi nga xam ne mujjantal gi dañ ko yàq pour man du Adji Sarr kese moom Me El Hadji Diouf politiciens yu ci bëree bëri léegi bu ñuy def seen ay sorti dañuy cibler quelque presse pour wax ak ñoom pour jàllale seen i message loolu nag yaakaar naa luñ yàggoon a gis ci presse bi la muy ñëw xëy na mbir yi da koy gën a dëggal mais lu yàggoon a am la euh, kuréelu presse yi nga xam ne ñoo fi nekk muy ëmb ay journaliste yaakaar naa ñu ngi ci doon coow mais coow li amul woon benn dayo bi parce que xëy na gisuñu woon ci yenn inconvénients yi mais tey bi ko Adji Sarr defee ñu gis un bu taxaw di dagg journaliste yi naan leen li ngeen di wax li ngeen di wax loolu day firndeel li ñu bare bare muy ne yenn ndajeek taskatu xibaar yi bu amee des fois lu ci bare bari dicté préparé lay doon pour ki nga xam ne moo koy def man Issa j'aime pas même dem ci ay déclaration de presse parce que boo fa demee déjà dañuy ñëw wax li ñoo dem seen yoon ñeneen ñi topp conférence de presse boo demee boo posé question il te répond li mu bëgg wax la lay wax amoo droit relance parce que boo ko relancé déjà lan la ñuy wax mënoo ko dagg mënoo def lii beneen bi nga xam ne nag fi lay ñëw aw oh, muy ñi nga xam ne ñooy dal ci kaw journalistes mm. pense que ni quand même d'une part nag euh, c'est pas honnête ay jël benn nit parce que tout simplement xëy na am na ñoo xam ne doon nañ leen jël ay interview ñuy wax tey ñu jël Adji Sarr mu wax ñu bëgg a dal ci journaliste yooyu noonu ne pourquoi ñu jël Adji Sarr alors que Adji Sarr elle se dit être victime yëpp ñu ngi doon réclamer Adji Sarr mu génn yaakaar naa tey amul benn presse bu nga xam ne bañ nga interviewé Adji Sarr kon finalement pourquoi ñu bëgg a jeter le euh, ma nu ñu ko waxee noonu ci ci kaw ci kaw journalistes yi nga xam ne ñoo demoon interviewé Adji euh, interviewé ji Adji Sarr alors que c' leur droit quand le plus absolu seulement que groupe association de presse yi wala les journalistes ñoom ñëpp ñoo war a booloo bu dee lu ñuy xeex la ñu xeexandoo ko que nekk loo xam ne c' est isolé kii day taxaw fii critiquer mais bu subaa bu ñu ko joxee la même personne mu jël ko parce que tey ñiy xas ne pourquoi njël Adji Sarr suba bu Adji Sarr ñëwee bëgg interview ah. mm. la quand même Georges mu mel ni ci li nga xamante ne moom moo di déclaration bi y a beaucoup de contradictions ci li nga xamante ne moom lañ doon dégg ci enquête préliminaire bi ci PV d'audition yi nga xamante ne jotoon na génn ak démb li nga xamante ne moom la aji Sarr wax. voilà euh, d'ailleurs contradiction yooyu bi may njëkkee jël euh, suma temps de parole j'évoquais euh, forme forme format wu. Euh, communication bi. Mhm. maanaam yu euh, si yoo xam ne daal bon voilà ça n'a pas marché comme ni ko sëñ Assane waxee. certains sénégalais dañ ne comédie la nii ne théâtre la nii ne mise en scène la am sax ne nii. Mhm. fu mu nekk nii euh, Adji Sarr woon waroon na mën a dem Hollywood wala Bollywood am fa benn <laughs> trophée. Mhm. ok mais pour aller dans le fond maintenant. si fond bi moom y a boire et manger ni ko tubaab di waxee. dafa bëri ay contradiction contradiction bi yi ma si gën a marqué mooy lan première contradiction bu buñ ko laajee journaliste yi buñ ko nee yow euh, viol multiple la wax mhm. viol répétitif répété xaw ma ñaata daf leen ne mënuma ko compter te pourtant dans le PV de la gendarmerie dafa ne quatre quatre fois donc loolu contradiction la mhm. donc moo tax ma ne la entre nit ki lu mu doon wax démb si gémmiñam ak lu nekk nekk dafa mel ni nekk woon si xelam dañ ko ko doon dicté rek une dictée mal préparée d'ailleurs et mal rendue ensuite am na foo xam ne dafa ne Ousmane Sonko moo suñu sekk dara mais même si même vidéo bi waxul loo xam ne euh, dafa yàgg matul une heure de temps mu dem ne waaw Ousmane moom dem na ba nee ma voilà de man yow su ma amuloon jabar yow laay takk ñaareel euh, su ma kër di dugg si ménage am mais yow nga yaakaar ne ku ñëw siif la est-ce que am na peut-être temps boo xam ne dafa ñëw di la di la jox sa donner sa vie privée comme ça en pâture loolu je crois que aussi bon véritablement peut-être ñi ko ko conseiller euh, voilà mooy loo xam ne peut dañ ko wax pour enfoncer ensuite dañ koy wax ne yow mu ne da nga yow da nga ëmb yow yaa ngi ne da nga ëmb te xamoo nga nekk jigéen xamoo sax carnet prénatal mooy lan. <laughs> ça veut dire que mooy loolu y a problème. ba pare nga ne dañ la ne nga jël pilule yi nga naan waaw. ba pare dem na sax ba joxe ay ay ay ay ay solution ay café xaw ma ak coca cola <laughs> loolu xam naa waa coca cola ak waa café nañ si am wàll peut-être nañ ko nañ on peut la poursuivre non je rigole pas mhm. waa coca cola wala waa café mën nañ ko mën nañ ko poursuivre pour euh, diffamation aussi hein parce que ça c'est très dangereux ah. loolu man médicament boobu maa ngi koy door a dégg solution boobu de façon ensuite elle elle s'est laissée tellement manipuler que finalement parce que manipulation laa koy mën a wax moo tax ma ne finalement dem dañ koy xool nga xam ne kii. elle s'est perdue euh, dans ce qu'elle doit dire. Mm-hmm. dem na ba xamatul lu muy wax. parce que boo nee man kii boo demee gendarmerie def déclaration quatre fois la la kii sëg ak man sëy mais nga dem sur le plateau nga ne xaw ma sax ñaata la ñii ñii viol répétitif mais xamoo sax ñaata donc cest dire que là il a un manque de sincérité wala boog. moom moo moo moo moo dem ba xelam jaxasoo plus loin mu dem ba jàpp ne bon dugg na si ay détails yu bëri kii ay kii bu mu daan ñëw day déposer ay armam fii di ma raconter sa vie privée yow da nga tooy ak ay des trucs comme ça. Mm. moi je trouve que à vouloir trop enfoncer aussi Ousmane Sonko dans cette affaire la euh, elle a banaliser le l'acte de viol. banaliser bu mooy lan. banaliser mooy maanaam euh, nit mën na la violer te dara du si génn parce que voilà il suffit simplement nga nettali nu mu demee ak euh, kii pour nit ki jàpp que ne yow tu es même complice dans dans ce viol là. parce que bu demee moom au début depuis affaire bi mu commencé viol lay wax dañ ma siif siif répétitif mënu mu ne mënu ko compter dem ba ne na Ousmane Sonko waat ne mosul sekk ak man waxul ne mosul na siif dafa ne na waat rek ndax mosul sekk ak man. ça veut dire quoi ça veut dire que moom viol boobu mu wax sax peut-être nit moo ko ko wax mais ça l'intéresse pas lu ko intéressé mooy na opinion nationale ak internationale jàpp rek ne kooku na bëgg a nekk président Sénégal kooku di xëccoo di dirante mbagg ak président euh, Macky Sall man maa koy maase te man vraiment maay kaani xëy ñam des trucs comme ça donc loolu xam nga yëpp tamit bon xam nga ndam la si moom quoi donc pour moom loolu rek la soxla parce que boo lu mu wax noonu nawaat te Ousmane waat na dégg naa keroog Ousmane Sonko bu ma gënee nee na. billaahi bu fekkee ne li ma li ma jiiñ maa ko def. du doon wax wallaahi wala en tout cas. voilà defe ne maa ngi waat bu doon bu dee li ma li ma li ma jiiñ maa ko def. je je je me considère comme un criminel. Mhm. donc kay bu fekkee ne dégg lu dégg na loolu saxatul muy waat moom kay ne wax leneen na ne bu fekkee ne dama ëmb na Ousmane Sonko ñëw reconnaître ne maay. ëmbal maay euh, ëmbal Adji Sarr bu ko waxoon. nopp man na ko dégg bu waxoon ne na Ousmane Sonko ñëw reconnaître ne tëdd nag man te loolu la wax sax parce que nee na ne na waat rek ne tëdd nag man moom tamit xam naa ndeysaan ak ay euh, ak je sais pas moom dem na benee sax moom lu muy képp nee na bu ñuy waxtaan maak ak Sonko man dem di daagu pale sax nekk jigéen mu nekk yaa ngi xalaat yow xam nga loolu nag vraiment voilà loo looloo ma si gën a métti mm. te looloo mu gën a naqari si mbir mi parce que la la c'est vraiment banaliser le viol et tey bëgg jël sénégalais yi def leen ay euh, teg leen lu ñu nekkul quoi mm-hmm. parce que vraiment yaa a des ak langage boo xam ne sénégalais yi duñ ko nangu ah bu ah. fekkee ne moom daagu pale moo taxoon mu jóg moo taxoon muy mu muy incarné moo taxoon muy jéem a loo Sonko ba xam ma miir na xam ma miirul ndax pour daagu pale ëllëg loolu Sénégal duñ ko nangu te du am ah tey Assane euh, suñu dégloo discours aji Sarr ak yi muy relaté yëpp ci biir est-ce que tey jii gis nañu ne mm, sénégalais yëpp dañu doon benn gànk euh, ci ginnaaw Ousmane Sonko di défendre itam ay principes mais est-ce que lii du saper leur morale est-ce que tey jii euh, rassemblement boobu ñu gisoon cohésion boobu ñu gisoon du commencé wu di effrité wu. waaw awa gis nga contradiction yu bari yi am ci déclaration ndaw soosu. Euh, ci plateau bi am na ay journalistes ay observateurs damay bàyyi ñu relever ko Sénégal yi ñu seetaan également ñoom relever nañ ko. Hmm. mais man dama fi teew ci turu parti politique donc euh, duma ma trop di commenter benn mise en scène théâtrale si jamono boobu boo xam ne ñi nga am Abbas Fall Guy Marius Sagna Clédor Sène Assane Diouf ak yeneen sénégalais yoo xam ni de manière arbitraire de manière injuste ñu ngi leen téye ci kaso bi benn théâtre ñëw bëgg a tax ñu étouffer revendication démocratique. mais loolu tax ma ne la cohésion bi ngeen am groupe yi ndax parti ngeen bokk mais parti bi itam dafa am tey kuréel yoo xamante ne si ngeen tënku. ngir aar yenn principe yi. moo tax ma ne leen est-ce que discours bii ngeen jot a dégg du saper votre morale ak cohésion boobu ñu gis est-ce que du ko tas. looloo tax non j'ai compris que ne présence su moo tax. voilà très moo tax ma ni man. li nga xam ni génn na démb amul lenn loo xam ni mën na ko soppi si sunu dox. parce que bu ngeen di fàttaliku samedi bii passé waroon nañu organiser benn manifestation. Mhm. mais grace à l' intervention du xalif général de Mourides sàkk ko moo tax m d toxal manifestation donc ñun moo tax li xew démb daf ñu bett ñun ñu ngi doon xaar ay mesures d' apaisement yoo xam ni danañu may. au moyen ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñu mën leen a dëjël ñi nga xam ne également am na ay gaañ-gaañ yoo xam ni am nañ ko ci ñu mën a ubbi l'enquête une enquête indépendante pour mën a situer les responsabilités yaakaar naa débat bi foofu lañ ko war a orienter ndax li xew mooy Macky Sall 2012 ba léegi conception bi mu amoon ci pouvoir mooy boo amee police am gendarmerie am une justice aux ordres am une majorité parlementaire mécanique lu la neex da ngay def ci biir réew mi te dara du xew boo waxee ñu ne la force restera à la loi moo xewoon bërki démb ci Karim Wade xew démb ci xalifa Sall tey les sénégalais ñoom ñoo mobilisé wu ni ko li woon wonni na tey Ousmane Sonko bu ñu demee ba placer ko sous contrôle judiciaire mhm. yaakaar naa c'est grace à la mobilisation de la jeunesse te jeunes yooyu génnoon dégg nañ président Macky Sall di wax ay waxu Covid ay waxu famine d'accord am na ñoo xam ne xëy na loolu moo leen yëkkati woon mais man maa ngi woon sur place dama gis ay universitaires yoo xam ne juge nañ université ñëw di manifester yaakaar naa ñooñu xiifuñu maruñu c'est parce que dañu am ay revendication démocratiques yoo xam ni moo leen yëkkati malheureusement li xew démb ak discours bi ñu dégg depuis la dernière fois muy juge ci gouvernement bi loolu li muy firndeel rek mooy malgré les morts 14 morts en l'espace d'une semaine malgré li fi xew yépp ñi amul benn jàngat boo xam ni tiré nañ ko ci moo tax man may lancer un appel au gouvernement au président de la république Macky Sall complot bi sénégalais yëpp gis nañ ni leer na nag ñi jàpp naa ni pour jàmm ñëwaat ci réew mi stabilité ñëwaat ci réew mi nañu fàtte complot boobu bu ko defee revendication yi nga xam ni M2D formulé na ko ñu mën a xalaat nan la ñuy saafara revendication mhm. yooyu. yaakaar naa moo ëpp solo. d' mhm. dinañ ci dellu si waat euh, Pape Sànq yaa ngi wax ne bëri na ay contradiction yi nga xamante ne mi ngi ci te relevé nga yeneen accusation yoo xamante ne. Mhm. Adji Sarr wax na ko ci biir naam bu fekkee ne ñun novice yi bàyyiwuñ ci xel. waaw xam nga loolu moom lu am la. parce que non ni mu amee incohérence noonu la amee accusation yu bees yoo xamante ne teg na ko ci kaw Sonko moo tax ma ni euh, piège bi daanu ci ci ci li nga xamante ni moom mooy pièce bi mhm. am na ci boo xamante ni Georges junj na ko léegi muy lu jëm ci wàllum viol bi xam nga on parle de viol xam nga moom dafa ni na waat rek ni Ousmane Sonko na waat rek ni musul seq ak man problème bi du question seq bi wala déedéet nee na waxatuma sax waxu viol justement c'est-à-dire que euh, euh, rapport bu am consentement wax ji foofu wax ji mooy wàllum viol bi la ñuy wax te foofu noonu euh, il est important sénégalais yi xam lu jëm ci wàllu par exemple góor ak jigéen bu seq dara moom xaw ma njaaloo lañ koy tuddee xaw ma lu leen neex ñu tuddee ko mhm. xam nañu position charia sur la question mais il est important ñu xam loi bi lan la wax ci njaaloo bu fekkente ne ku góor ki célibataire nga ku jigéen ki célibataire lu ngeen mënti séq loolu du délit loi bi terew ko loi bi yoonam nekku ci bu fekkente ne om marié nga couple bu marié kenn ci ñoom def ko loi bi dañuy xool ndax defoo ko ci état de nécessité maanaam sa est-ce que sa partenaire takkul woon sa biir nga dem defi ko bu fekkente ne état de nécessité la woon dara du la ci fekk même en France sax soppi nañu seen loi loolu la bu fekkente ne leneen ak leneen la du délit bu la yóbbu kaso mais mën nañ la ci ay faylo ay alamaan mën na la ci fekk donc loolu dafa jaar nit ñi xam ko mhm. léegi question bi du question de rapport sexuel bu am consentement wax parce que man li ma doon xaar mooy ba mu waatee ni wax lii ak lii waat wax lii ak lii wax ne Ousmane Sonko man nam doon naa xaar mu waat ni dañ ko viol Mhm. mais ba léegi def ko waat na ci lépp ba mu des waat ci dañ ma boo gisee Adji teg fële viol bi di wax rapport sexuel consentement bi dafa am fu mu bëgg a ñëw parce que ci jotaay yi passé tegaloon naa leen fi expliqué naa ñaari mbir yoo xam ne plan état la mhm. état li mu ci lii du lenn lu dul gàkkal deru Ousmane Sonko tilimal ko fexe ba ñu yóbbu ko ñu àtte ko moo xam day compatriote libre wala en état d' te bés bu ñu demee loolu moo nekk seen intention de la même manière également li ma fi waxoon jotaay bi passé parce que neewoon naa leen aji Sonko dafa am euh, aji aji Sarr mhm. dafa am ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaramam mhm. famille am ñi ngi réclamé nag nañ ko ko jox nañu muñ te dinañ leen delloo aji Sarr waaye bu ñu leen koy delloo vraiment ce sera trop tard ah, li ci kan non li ci kanam raw li bët aji dafa feebar aji Sarr dafa am ay jafe-jafe yu wér-gu-yaram bu li ci kanam dina feeñ ci kanam lépp dina feeñ lépp dina leer. ndax du état psychologique ndax démb ci biir vidéo am na benn moment mi ngi naan maa ngi kontaan ci li fi xew. <laughs> xam nga euh, nañ dem ba ci kanam rek lépp dina leer li tax ma waxoon ko jotaay bi passé ñëwaat fii répété waat ne Adji Sarr dafa am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaram buñ demee ba ci kanam lépp dina feeñ. mais famille am nañu vigilant xool ba moment ba ñu leen koy delloo dina fekk ne c'est déjà trop parce que Adji Sarr tey bés bu taxawoon nar a arrière état bi da koy liquider ça c'est clair. bis bu taxawoon ni day dellu ginnaaw teggi tuumay wala deleef leneen ak leneen duñ ko ci bàyyi loolu c'est li tax ñu kidnappé ko lii kidnapping la séquestration la enlèvement la détournement la parce que say parents mënuñ jot ci yow mënuñ am ci yow accès ba sa famille jug ni dañuy dem porter ji plainte mais nañ ko bàyyi mu dem ci ñi nga xam ñoom ñooy loxo kii donc loolu benn aspect la rek par rapport ak yi nga xam ne tuuma yu bees la ak incohérence na ci yeneen yoo xam ne relevé nag parce que ci biir wax ji mi ngi dafa am lu ñuy tuddee PV ak carnet de déclaration. carnet de déclaration yi fa la ñuy sotti lépp mais lépp dugg ci PV bi capitaine Touré moom bi mu génnee ne recruté naan effectivement ne du li nekk ci carnet de déclaration bi lépp la ñu def ci PV bi ba pare accusation de sodomie. Mhm. bañ ko dégloo gendarmerie. nekkul ci plainte bi musu ko wax à l' enquête préliminaire. donc ce qui s'est passé daal Adji Sarr n'a fait que répéter ce qu'il a dit devant le juge d'instruction ci gàttal parce que déglu nañ ko ñaari yoon boobu léegi ci dossier bi déglu nañ ko enquête préliminaire mooy gendarmerie déglu nañ ko ci juge d'instruction bi muy audition bi la mu wax ci audition bi moom la dem répété ci biir te ba ko gendarmerie di déglu au début musul wax sodomi sodomi maanaam euh, ñu sëyee ko ginnaaw musu ko wax foofu donc ñu ngi nga xamante ne am na jëm ci wàllum xaalis nga xamante ne Ousmane Sonko jox na ko am na la mu wax ci gendarme yi du loolu la waxaat fii tey. Mhm. démb lu mu wax ñaata la wax. du vingt mille francs mais ba mu def enquête préliminaire ñaata la waxoon. donc am na am na variation. Euh, euh, xale ba nekkoon ko. Aïcha Ba ensuite bañ ko dégloo gendarmerie dafa ne c'était la première fois Ousmane Sonko yegg ci kaw mais démb ci ba mu jàkkaarloog journaliste yi journaliste yi ñaata laaj nañ ko ñaata yoon nga seq ak Sonko. Mhm. la mu tontu ñun ñëpp dégg nañ ko mais c'est clair. on n'invente pas des choses ay faits yu leer nañ la ñu teg ci table di ko analyser. Mhm. démb bañ ko laajee ñaata yoon nga séq ak waa dafa ne sax moom xamatu ko mënatu ko compter. donc foofu peut-être euh, nu mu rapport sexuel consentement bu dee sax existé na. même loolu bu fekkente ne loolu am na. vraiment euh, ba pare leneen li ma doon daanelee di ko leeral mooy lu jëm ci xam nga nee na dafa tombé enceinte. Mhm. te wax na ki ko enceinte. lu jëm ci wàllu viol su c'est-à-dire que foofu mu jafandu baaxul dëgërul. bu fa continuer jafandu du am dara ci dossier bi parce que viol suivi de grossesse Sénégal xam nañ nañ koy traité képp koo xam ne yaa ngi yëngatu justice xam nga li may wax dossier yi fa ñëw pour viol suivi de grossesse yëpp xam nañ nu muy demee. nuñ koy traité nit ki bu ko nangoo reconnaître nangoo ngente xale bi dañ lay bàyyi nga dem ñibbi. mais ci grossesse boobu daf ko wax tout au début après ci biir laajaan nañ ko ko ñaari yoon mu ne du ci wax vie la. muy incohérence boo xamante ne tamit noté nañ ko à deux mais ba pare tamit euh, ah, en tout mooy. wax na ni loolee am na léegi moo tax ma ni foofu mu jafandu baaxul dëgërul parce que viol suivi de grossesse gis nañu dossier euh, le lutteur là Bruce Lee ba mu ko fi pour viol de grossesse nan la mujjee ci jotaay yi weesu maa leen doon tudd le chargé de mission présidence boobee nga xam ne dafa violé mineur bu ñu ko dénkoon ba pare dossier bi demul fenn lan moo tax ñu génnee ko si mm-hmm. à chaque fois viol suivi de grossesse bu la ci kenn nax Sénégal léegi nag li ñuy interroger en matière de viol suivi de grossesse ni muy doxalee waaw leen parce que waa ji bu taxawee ni reconnaître naa xale bi dinaa ko ngénte dinaa ko dundal jox ko sama sant dañ lay bàyyi nga dem ñibbi est-ce que noonu la war a doxee waaw wala déet c'est sujet à interprétation mm-hmm. am na yeneen accusation yoo xam ne tamit euh, aji yëkkati na ko naam euh, bu fekkee ne tey jii euh, dafa jël en enfoncé ki nga xamante ne moo nekkoon patronam di Ndeye Khady Ndiaye ndax su jëlee salon de massage boobu tey bëgg koo transformé en un de prostitution Issa waa xam nga déjà ñi ngi doon dégg wàllum euh, proxénétisme ci biir dossier bi nga dégg bi muy enfoncé femme bi li li muy wax moom déjà mi ngi ñuy wax massage corps à corps di wax yeneen xeetu massage yoo xam ne déjà ak euh, bu jekk bi nga xam ne moom la def euh, da nga mm-hmm. yi moom moo doon dem ci salon de massage bi di di masser nit ñi parce problème voilà yoo xam ne déjà day xaw a tey xelu nit ñi ci salon de massage loolu nag yaakaar naa li ñu naan c'est de bonne guerre mu jéem fexe enfoncé Ndeye Khady Ndiaye malgré que mi ngi naan sax yéenewu ma ko lu bon ak yéenoon te dama koy comprendre loolu itam luñ mën a xam la parce que ñu ci bari dañoo génn accuser leen donc ñoom bu ñuy def réponse parce que c'est pas Adji Sarr qui parle daanaka mën nañu mbirum avocat la bu ñuy def réponse benn par benn la tontu gars boo xoolee tontu nañu capitaine Touré te foofu quand même du ma fi ànd ak Pape Ndiaye <laughs> parce que capitaine Touré bi muy génn di wax PV d'enquête yi daf ne woon am na loo xam ne bindu ko ci Adji Sarr nee na ci kanam capitaine Touré ci lañ doon waxee ci la ko Ndeye Xane Ndiaye ne ko pour mu yàq am bi loolu yaakaar naa capitaine Touré nga xam ne mi ngi ñuy tàmmal des fois ay ay sorti wala ay euh, communiqué ak yooyu noonu war na ci mën a wax est-ce que du est-ce que loolu bokkul ci li nga xam ne moom la dindi moom ci PV d'enquête bañ ko cee bind loolu c'est très important parce que moom da ko waxoon par femme bi ñëw wax loo xam ne xëy na nit ñi gisuñu ko ci PV d'enquête bi benn ngi noonu beneen bis topp awa mooy. deuxième part mais est loolu xel mën na ko nangu ci devant les enquêteurs. Ndeye Khady ne ko yàqal ëmb. ne ay parole la parole contre parole la rek moo tax ma ne la moom ka moom moom Touré aussi am na ci part de responsabilité ci mbir mi parce que bi mu génnee wax ko fi fii laa fii Georges toog laa toog ne je pas d'accord si yenn yi nga xam ne wax na ko te quand même j'assume beneen bi topp mooy euh, Assane Kane ngi koy wax sàng ci yenn ja yi nga xam ne mi ngi am rawatina M2D noonu deuxième vague la Ousmane Sonko annoncé. Mm-hmm. donc bi mu annoncé gis Adji Sarr ñu génne la ñuy préparé mooy xëy bu ñu naree dem ci deuxième vague nar a songu Ousmane na fekk sénégalais yu bari gëm ne Sonko li ñu koy tuumaal moo ko def ñu doog a dem ak moom ci deuxième vague boobu noonu loolu itam lu lu mën a nekk la mais nag na temps yi moom moom la ñu xaw a parce que nag bu fekkente ni teeloon naa génn. Mhm. jamono ji le 7 mars le 7 euh, suma ma juumul le 7 euh, février bis su Ousmane Sonko di génn di weddi tuuma yi guddi googu noonu wala le lendemain jour bi nga xam ne ci lañ koy jël xëy na bu Adji Sarr waxoon mën na am benn crédibilité bi mhm. mais toog. ñu Sonko wax wala mbir yi dem a dema dem ba jamono ji nga xam ne Adji Sarr bu waxee même bu dee dëgg duñ ko gëm c'est la réalité beneen bis topp nag mooy euh, foofu laay jeexale wa mooy déjà Adji Sarr bi nga xam ne moom la ñuy présenté est-ce que aussi mën na nekk une personne bi ñu bëgg mu doon ko une communicante ku nga xam ne dina wax lu cohérente lu lu normal lépp ñu bëgg koo jël jugé ko ci côté boobu noonu aussi des fois day xaw a day xaw a nekk problème parce que nag bu fekkente ne tàmmul micro tàmmul communication malgré que xëy na bu dee dëgg lay raconté waru ci juum mais itam des fois yenn njuum tey quand même. mën na nekk ci communication daañu sax foofu am na lu ma bëggoon leeral bu uh-huh. ndaw mooy. Euh, maître El Hadj Diouf il est très intelligent li mu def xam na ko de. Mm-hmm. gëmmantuwul sax bay nelaw parce que xam na bu baax li mu def. moment bi mu wax loo ni Adji Sarr. c'est mhm. pas par hasard. parce que boo xoolee xam nga yomb na trop tey nga teg. nit ay tuuma koo xam ne mënta tontu. Ousmane Sonko mënta tontu parce que contrôle judiciaire la am buy wax ñu koy annuler contrôle judiciaire dóor ko mandat dépôt mu dem rëbës de la même manière Ndeye mënul tontu moom tamit parce que dossier bi la bokk donc xam nga yomb na kon nga yëkkati ay tuuma ci koo xam ne mënul tontu. mais kon nañ jël ay daan teg ko ki ki violé moment maître El Hadj Diouf xam na li mu de mais tontu moment boo xam ni mais duñ ko c'est pas au peuple de juger c'est-à-dire que là lu ñuy def nii yëpp que ce soit Adji Sarr que ce soit Ousmane Sonko tous ces messages là tous ces discours sont destinés à la consommation populaire maanaam ñoom xam nañ ne euh, Adji Sarr ak ñi mu àndal yëpp ñi koy ñi koy conseillé ñi ko ngemb ñi ko ngemb xam nañ ne loolu c'est juste destiné au Sénégalais aux Sénégalais mm-hmm. changer peut-être seen discours par rapport ak euh, Ousmane Sonko ak euh, événement yi fi jaar yëpp mm-hmm. pour que Sénégalais yi ne kii ngeen kii ngeen tax ngeen di nag si mbedd mi di xeex nii la mel mais bref je crois que argument yi ñu joxe moom ak yi Ousmane ko joxe kenn rek moo koy jugé ginnaaw yàlla te yàlla moom xam nga ni wàcc du wàcc rien que pour pour, pour juger mais juge voilà <laughs> mais léegi comme justice nee nañ plainte am na te ñoom ñaar ñëpp nee nañu dañoo bëgg mbir mi leer juste justice rek yaakaar naa moo ko mën a leeral mhm. te Adji Sarr lu mu fi nii yëpp juge bi moo ko gën a soxla juge bi moo ko gën a bëgg a xam hmm. juge bu demee si moom mën na ko ko wax ensuite toog di ko naan ne ne juré mais loolu juré mais tey euh, Georges est-ce que le juge va pa euh, laisser passer cette violation ah oui c'est ça parce que aussi je crois que Pape évoqué na ko y a y a une quelque chose qui ressemble à deux poids deux mesures ne Ousmane Sonko bu la wax ci dossier bi mhm. d'ailleurs moom je crois que bu mu génnee nee na man homme politique la suñ ci waxee suñ ci waxee dinaa si wax uh-huh. donc il faut s'attendre à ce que moom tamit xaw ma naka la koy waxee peut-être au cours d'un discours mën na ko enrober pour répondre pas pas mu convoquer euh, comme ni ko Pape di xalaatee mu convoquer juste pour en parler uniquement comme ni ko ndaw si defee pour en parler uniquement mais euh, je pense que et ça il peut le faire mën na ko enrober au cours d'une séance comme euh, muy def nii encore là tournée muy def nii enrober ko au cours d'une phrase wala a une question répondre à une question boo xam ne journaliste moo koy euh, posé mu répondre si tabaxal ko si loolu c'est pas interdit de toute façon on ne pourra pas le poursuivre pour ça maintenant pour pour revenir à ah. au truc non je crois que yow yaa ko wax de euh, Issa nga nga histoire de proxénétisme là mhm. mais ndaw si la borom salon bi buñ ko jàppee normalement pour proxénétisme. jàpp Alisa pour prostitution pour défaut waaye prostitution de carnet sanitaire oui normalement. donc xam nga affaire bi c'est un couteau à double tranchant je crois que euh, parfois dangay ngay gasal sa ndonn kàmb te fekk mën nga si eh, toog mën nga si mën nga si daanu mhm. moo tax il faut faire très attention dans ce, ce dossier là est tellement compliqué mhm. comme je l'ai dit euh, yàlla rek moo xam fi dégg féete mais pour l'instant les gens vont épiloguer les Sénégalais nañ si mhm. nañ si euh, bàyyi xel nañ si ils vont se faire d'accord rapidement waaw uh-huh. euh, su ma doon Ousmane Sonko wala bu ma doon conseil Ousmane Sonko du ma génn sax di tontu Adji Sarr pour ñaari mbir mhm. bi si jiitu mooy Adji Sarr li mu wax yëpp engagé wul juge bi engagé wul justice amul mhm. benn impact ci procédure bi muy benn euh, ñaareel bi tamit dafa am benn piège boo xamante ni euh, ñi ngi ko koy bëgg tànd tendre euh, te waru fa yegg ñetteelu raison bi war a tax Ousmane Sonko war a ko tontu mooy démb ba léegi askan wi ni ñu. Euh, ñoom ñoo defal seen bopp seen jugement ni ñuy xalaatee sotti Ousmane Sonko ak ñu ko defee jugement yaakaar naa askan wi fàtte na ko parce que sondage boo mënti jël moo xam Facebook la moo xam ngay waxtaan ak ci mbedd meeg ci moyen de transport foo mënti dugg la plupart des sénégalais gëmuñu li nga xamante ne Adji Sarr wax na ko. donc mhm. loolu rek doy na atte. doy na atte koy tontu. Assane du président Macky moom moo waroon a siffler la fin de la récréation balaa maître El Hadj ak ñoom Adji di génn naan ñi ngi wax ndax moom moo leen ñoom ñëpp te suñ ko ci tuddee tudd ci ay ñooñam ba li fi xew fi est-ce que c'était pas à lui de prendre sur lui taaj njabootam wax leen dëgg pour siffler la fin de la récréation. mais loolu mooy dëgg awa ndax euh, Pape wax na ko sénégalais pour l'essentiel depuis le départ xam nañ li li ko lal donc foofu débat amatu fa. donc bu ñu demee ba nekk ci situation bu mel nii ñuy revenir aat ci dossier bu mel noonu yaakaar naa loolu li muy firnde également mooy président Macky Sall ñi nga xam ni ñi ngi liggéey ak moom xëy na weguñu parce que man mënuma jàpp ni maître El Hadj moom personnellement moom moo jël décision démb woote benn déclaration de presse ak Adji Sarr xëy na ñi nga xam ne depuis le départ ñoom ñoo doon euh, mettre en œuvre complot boobu xëy na ba léegi aussi ñoom ñooy wéyal donc man jàpp naa ni apaisement pour mu am Issa mi ngi wax deuxième vague yaakaar naa les clés de l'apaisement mi ngi ci loxoy président de la république Macky Sall jàpp naa ni bi ñu mettre sous contrôle judiciaire Ousmane Sonko ndogal bi mu waroon a jël immédiatement mooy ñeneen ñi également topp ci parce que mënuñu comprendre ki nga xam ni moom moo nekkoon le personnage central nga mettre ko sous controle judiciaire mu génn mais ñeneen ñi nga xam ne également dañu génnoon di ko défendre moo xam ay responsable politique leen yu nekk Pastef wala ay activiste comme ñoom Guy Marius Sagna wala ak yeneen ndaw yoo xam ni xëy na xamuñu leen mais bi ñu génnee c'était pour défendre de la même de Ousmane Sonko c'était pour défendre la démocratie mhm. donc mënuloo ne yaa ngiy woote apaisement te ñooñu nga wéy di leen téye ci kaso bi mhm. mënuloo ne aussi yaa ngi woote apaisement te m d yeneen revendication yi mu xam ne daf ko teg sur la table ubbiwoo ay waxtaan pour indi ci saafara ndax ci revendication yooyu bokk na ci respect du calendrier électoral mhm. kenn mënul comprendre ñu ni Sénégal démocratie la mais mennum président Macky Sall mhm. moom xam moom moo xam élection yi kañ lañ koy amal mhm. yaakaar naa loolu kenn waru ko accepter élection locale normalement waroon na am 2019 bientôt ça fera deux ans ñi nga xam ne ñi ngi à la tête des collectivités territoriales mais amuñu benn légitimité mais le pouvoir refuse d'organiser les mm élections te dafa am benn acquis bu am solo boo xam ne amoon nañ ko mhm. bi Macky Sall di ñëw mooy la rationalisation du calendrier électoral mhm. bu ngeen di fàttaliku 2012 le président Macky Sall di ñëw bu fekkoon respecte na kàddoom 2017 normalement <laughs> waroon nañu amal élection présidentielle mhm. amal aussi élection législative loolu c'est extrêmement important donc benn at bi ñu amal élection présidentielle ak élection législative mais ñàkk respecté kaddu bi nga xam ni mooy indi lii na ci président Macky Sall moom moo indi li tey. d' accord euh, Georges en 30 secondes est ce que lii euh, cette sortie là de Adji Sarr euh, doo accélérer li nga xamante ne moom moo di procès bi nga xamante ne tout le monde euh, li ñuy laajte rek mooy procès bi mu am ci nu mu gën a gaawee est ce que lii du ko accélérer. man très franchement pour te dire la vérité man gëmuma ne lii procès dina am si. si gëmoo ko. ah xanaa dem xanaa dem xanaa dem jëlee ay juge France indi leen fii. ak ay avocats. Pape si point boobu man fii Sénégal mhm. yaakaaruma procès bi. ndax procès dina am ci ni mu gën a gaawee moom noolee laa gën a jàpp. leneen lu ci am bu bu noolee bu ci amul tam bu ñu demee procès moom pour ñu euh, am leneen loo xamante ne dina gën a jege loolu parce que man day wax dëgg yàlla en tant que journaliste bu spécialisé ci chronique judiciaire gisaguma firnde gu leer nañ bu ñu mën a taqale Ousmane Sonko. ba pare tamit vraiment. Euh, li may daanelee mooy nañu tëddee njaaxaanaay ci wàll mhm. yëpp tey jii nii bu fekkante ne Ousmane Sonko moo génnoon wax mais kon coow li kon demee na neneen lu ne jiiñ nañ ko ko te bu mhm. boobaa est-ce que procureur du jóg sax ne daf koy arrêté de la même manière bu ko beneen wàll gi amee defee tamit na yoon def liggéeyam c'est comme li ma fi waxoon jotaay bee passé rek ñi nga xam ne dañu fare ci pouvoir bi bu defee lu yoon tere dara du leen ci fekk bu dee camp opposition la lu ndaw lu ñu def ay ñoom Assane Diouf Guy Marius Sagna ak yooyu dañ leen a soupçonné rek dem daal di jàpp leen dal seen kaw peut-être que lundi su audition amee dinañ leen bàyyi ñu ñibbi seen kër Issa rapidement ci wax sa xalaat bi am ci internet bi waaw ne en euh, ko doon euh, layal euh, ki di Victor Sadio Diouf Victor Sadio Diouf moom mu jàpp ne Adji Sarr jamono ji dafa wéet lool ci xeex bi euh, ki nga xam ne sax moo di kon amadu Tidiane si moom la ñuy doore euh, ndax moom jàpp na ne daal euh, Ousmane Sonko Adji Sarr mu ne ñi ñi nga xam ne ñoo xam ñan ñoo xam mbir yi te itam sax ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci des daanaka ku ci nekk ak li nga xam ne moom ngay xalaat kon jàpp na ne argument yi ñu utiliser lu ci bare bëri doon na yoo xam ne quand même yu yu xel mënta nangu la tey sax bëri na ci ay yoo xam ne am na ci mbir yi ñu jël beneen commentaire bu fekkente ne nag ki la di saako xam-xam moom mu ne même attitude waaye itam euh, war a xoolaat moo di traitement bi nga xam ne moom la ñu war a jox cette euh, na ne nag euh, jamono ji waratul mën a noppi ci jamono ji nga xam ne ci lañ koy taqal te itam sax dañ ko nar a yóbbu ci boo xam ne boo moytuwul mën na ci am ay jafe-jafe di koy bàyyi te loolu du loo xam ne mën nañ koo nangu beneen commentaire bu fekkee ne disponible nag ki la di imam Kanté moom mu ne nag mon commentaire à sur la sortie de Adji Raby mu ne opinion publique bi nga xam ne déjà ñoom la Adji saar doon convaincre euh, du loo xam ne lu mu war a def la parce que juge la war a euh, convaincre te itam sax li nga xam ne moom lay wax mu di waat yi